demi-finale bii ñuy euh, dëgmal mu diggante Haneen ak Mbodiène muy bés boo xam ne bés bu mag la ci wàllu sport fii ci noto jabas man ndokkeel bu baax la président Cheikh Mbouck ak xale yi di wax ne rek sport dafa nekk moment yoo xam ne dañuy euh, wane ay jikko jikko yu war a gànnaayoo ci àddina ndax xam nga sport d'abord day wane ne nit ki ki koy jëf ki koy def euh, mën na nekk citoyen boo xam ne citoyen mucc ayib ndax jikko yu may gànnaayoo ndax li ñu naan respect de soi maanaam gëm sa bopp da nga koy wane ci sport respect de l'adversaire maanaam ki ngay jànkonteel nga jox ko cër ba mot sëkk loolu dañ koy wane ci sport respect des règles de jeu maanaam ka nga xam ne mooy kilifa ba nga xam ne mooy saytu jeu bi également ñu jox ko cër yëpp dafa am nekk jikko yoo xam ne yu am solo la ci koom-koom te incha allah vraiment moo tax ñu am mbégte ànd ak xale yi fii tey ci ANEM développement réew dafa tënku ci ay jikko euh, ñu ko tuddee ko ci tubaab ay consensus ndaxte boo jëlee wàllu euh, énergie nga xamné Sénégal at yi di ñëw dina commencé euh, produire pétrole ak gaz dañuy soxla consensus bu yaatu manam waruñu am xaaj ak seen ñëpp ci wara japp pour que Sénégal yëkkati ko loolu warul am ki fété fi ak ku fété fi Sénégal yëpp ci wara bok muy consensus fort dañ ko war am ci walu énergie war ko am ci walu sécurité war ko am également ci wàllu diplomatie yëpp dafa nekk ay ay domaine nu liggéey yoo xam ne li ñuy wane ci sport ci wàllu jikko daf koy fësal ah ñu tuddee ko code sportif donc moo tax sport dafa am solo ndax dañuy jàngal doomu aadama yi naka la ñu mën a comporter pour nekk ay citoyen ci Sénégal mais également ci àddina bi te nga xam ne àddina bi aussi dafa am ay jafe-jafe yu fi nekk yoo xam ne pour ñu jànkantoog ñoom pour ñu yëkkati ko laaj na ñu def bloc ñu nekk benn ñu ànd ak jikko yi nga xam ne moo la ko wax ci sport sans muy le respect de soi-même jox sa cër sa adversaire respect les règles du jeu respect également lepp lo xam dafa ar suñu société lolou may tax ñu mën am doole Sénégal am doole Sénégal mën am ndam